ñaanal sëriñ Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha sunu borom gën ko fee yàggal lool te doole ak wéram waaye ñaanal nag ndawam lii nga xamante ni bii moom lay yabal ci lépp loo xamante ne war na caa dem te mënu caa dem muy ndawul yoon wi di Cheikh Mouhamadul Basir yàlla na yàlla dëppale man-manam ak yéenay mag ñi ci barke Cheikhul Khadim sëriñ bi jox ko ndigal mu woote fii tey ci këram ci alxames ci daje boo xam ne. da cee woo mbooleem buntu kër yi Cheikh Ibrahima Fall yëpp woo ci it ñi nga xam ne ñoom la yàlla dénk zairus réew mi ci seen loxo muy ndawi état bi mbooleem bunt kër yi maam Cheikh Ibrahima Fall yi ñu ngi teew ki nga xam ne moom lañ dénk dëkk bi di chef de village bi it mi ngi teew jiite ko mbooleem village yi fi nekk yëpp procureur bu Mbàkke mi ngi ni teew ànd ak sous-préfet ak commandant brigade bi ak commissaire bu police bi muy ndigal loo xam ne nag sëriñ bi da ko jox seex Cheikh Mahamadoul Bachir ci teewaayu sëriñ Cheikh Mbacke mu sëriñ Abdou Latif mi nga xam ne mooy ubbi jataay bi su yëkkatee ay kàddoom ba noppi ñu jox sëriñ Daam Sooda mi nga xam ne mooy wax ci turu sëriñ Amdi moom moom sëñ Modou Mbenda moom maam Cheikh Rahima Fall mii xalif sal de Baye Fall ñu koy ñaanal gudd fan gu ànd ak wér bu yëkkatee kàddoom ba noppi danañ jox sous mu yëkkati ay kàddoom su noppee Cheikh Mahamadul Basir dana tëj jataay bi kon ñu bàyyee kàddu bi sëriñ Cheikh Mbacke mu sëriñ Abdou Latif. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. kon bokki taalibe yi fi daje. nu leen di nuyu jiitu Cheikh Mahamadul Basir moom Cheikh Abdou Khadir mi ndawul sëñ bi ni ko Fallou waxee léegi yore kàddoom di tànkam di ko. taxawal foom mu war a taxaw te mënu fa taxaw di ko waxal lu mu waroon a wax te aguje mu suñ boote woon démb ay kàddu yoo xam ne moom la la doon dénkaat di ko dolli ci ndénkaan yim dénkoon sëñ Moustapha moom sëñ Modou Mbenda mi fi nekkal Cheikh Ibra mu jëmee na ko ci këri Cheikh Ibra yëpp te waxtu bu nekk mu yëkkati ndigal di ko jëmee ci moom ñu di ko jàllale ba ndigal ndigal li ñu mujj mujj a nekk teñ nekk ci tem yaatu lool mooy sàmm war may dëkk bi loolu defe naa ne dégg ngeen ko ay yoon wax nañ ko ay yoon itam sëñ daam mii nga xam ne mooy kàddu sëñ am di googee wax na ci ay yoon démb nag sëñ bi woote waat Cheikh Bass sëriñ Basiru woon ci watu sëñ bi sëñ bi moo ko joxoon ndigalul woote bi mu ñëwee sëñ bi doon leeralaat rek liggéey bi ak solo si maam ak ni ko dëkk bi laaje ak ni ko jamono laaje ak lam ci xalaat moom sëñ Muntaxa ak la Seex Abdulaay waxoon ak lam ci xalaat ne jamono dolli na ko lépp mu wax ko sëñ Muntaxa wax na ko ci mu nekk wax ko njabootu Seex Ibra gépp waxoon sëñ Basiru nag ne ko tey jii na wootewaat ci këram leer gën koo leeral gannaaw bu sëñ daam leeralee lewoon ci kayit ba sëñ Mbass dana ci dolli ay kàddoom yoo xam ne kàddu yi sëñ bi lay jëm ci bokki jullit yëpp jëm ci bokk Sénégal yëpp rawatina bokki taal bi yëpp rawatina ñu dëkkee Touba ndax Touba daa lu ci borom ñaanoon boromam sàkk ko ci sanc ko mu di mu di fi dox waaye nag ànd ak doxu jamono muy ko ba faw nag léeg-léeg jamono dana toll foo xam ne danañ fàttaliwaat. la ci borom bëggoon da ci borom xalaatoon da ci boroom ñaanoon sunu boroom te may ko ko lépp nag muy sutura ak yërmande ak xéewal ci jullit yëpp rawatina taalibe yëpp rawatina ñu dëkkee Tuubaa ñëpp loolu nag kon ginnaaw jamono day dox ba àgg foo xam ne war nañoo yeesalaat ndigal ya yeesalaat kàddu ya kàddu yooyu rek ak yeesal gi rek moo tax Sëriñ Basiru woowaate waat ci këram ak woowaat ni ko Fallou Galas waxee léegi ñi ñi nga xam ne ñoom la yàlla dénk sa doxu réew mi ci saayir ñu yor ko ànd ak ñi yor dox batin gi bu yëpp àndee mu mën a dog mën a dox mën a yéwén mën a jub ni ñu ko bëggee moo tax sëñ wate wootewaat fi kon dañ koy ubbil rek di leen xamal ne nañ ko déglu te parce que yéen a jëfee loolu kat mooy sun njariñ mooy sun ndimbal itam nag ndax ab taalibe bi moom déglu ndigal te fes ko yéen a jëfe rek mooy warteefam bu ko defee rek wàcc te sëñ bi mag ñi daan nañu wax kenn wàcc wàcc ko ci kaw bu ñu bu taalibe wàccee nag sëñ bi sëñ bi njëkk a wàcc ndax sëñ moo nu yarul lépp moo nu gàddu lépp moo nu defaral lépp kon nan jéemee jéem a wàcc soo ndigal sëñ bi te mooy di di defee jëfe ndigal yi di bàyyi tere yi kon na ko ñëpp bàyyi xel ñëpp ñëpp fasoo ko ñëpp fagandikoo ko ñëpp yar ci seen bopp ñëpp xam ne suñ njëriñ ci la nekk ñu fas ci yéene nekk loolu rek may wax ji kon nag siñ nañ ko bàyyi sëñ Dame Soda mu wax leen li nañ ci kayit bi boo noppee sëñ Bass àggale kàddu yi loolu rek lañ ci doon ubbee nu itam noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala ñu ngi nuyu mbokk yi teewlu yëpp ci turu jëwriñu Cheikh Fall ji di Serigne Amdi Fall moom Serigne Modou Mbenda waaye di tàmbalee sunum nuyoo muy nuyoo bu bàyyikoo si moom jëm si jëwriñam ji di Cheikh Cheikh Modou Mountakha ñaan yàlla sunu borom téyel fanam bi ak wéram gi ba yéene ji mu am si liggéey sëñ tubaab yi mu def si lu kawe njortam te andi ko ak taalibe yëpp waaye di jottali ab nuyoo ak ziar mu jëm si Cheikh Amadou Bachir mi toog moom sëriñ Abdou Khadir di ko ñaanal yàlla sunu borom guddal aw fanam lool te wéral ay cëram yéene ji mu am si liggéey maam bii si yoon wi yàlla suñu borom kattanal ko moom def si ba def si lu kawe njortam. waaye di li am nuyoo mu jëm si mbooleem njabootug sëñ tubaa gi ak mbooleem njaboot gi nga xam ne ñoom la bokkal maam Cheikh Ibrahima Fall ndigal li nga xam ne nag moom la ñu am tey jii mooy di jottali euh, lii nga xam ne moom la ñu sëriñ bi jox mu jëm si wàll luy sàmm war ma ji ne ko ñëpp xamee du Modou Mountakha jëloon baat boobu dénk ko njabootug Cheikh Fall gi waaye ba mu ko dénkee njaboot Cheikh Fall gi te sëriñ di Fall nekk sa bopp ba. dafa daal di woo mboolem ñi mu bokkal Seera Fall tàmbalee ko si kër maam Saliou Fall Daaru Xafoor ba ni mu agsee si ma kër Serigne Gunda Fall moom maam Cheikh Ibrahima Fall ñoom ñëpp kenn ku si nekk tànn ay jëwriñ boole leen ak njaboot gi ñu ànd liggéey bi di ko taxawu si ni nga xam ne noonu la leen ko sëriñ bi digale woon nu dégg woon ko noona muy lépp loo xam ne waroon na ak lislaam lépp loo xam ne waroon na ak war ma ji ñu warloo tuubaa ak war ma ji ñu warloo ak njabootu sëñ Touba ndax bu nu fàtte ne li nu indi te bàyyi nu fi mooy jaamu yàlla te sunu jaamu yàlla ñun mooy topp sëñ Tuubaa yaakaar ko di ko liggéeyal loola waral sëriñ bi tànnaloon nu aw yoon ba ñu demee ba dox si ab diirit ñu dajewaat ak sëriñ bi noonu ko sëriñ Bas waxee noonu ko sëriñ Cheikhum sëñ Abdou Latif waxee sëriñ bi woolu woon njaboot gi démb ñu demoon teew fa moom mu jottali ay cant ak i ngërëm mu jëm si mboolem njabootu Cheikh Fall gi si taxawaay bi nga xam ne am nañ ko si liggéey bii. waaye ba mu ko defee ba noppit mu dolli ñoo dénkaat bu baax a baax si li nga xam ne loolu la jublu si liggéey bi ak lam sa sàkku muy loo xam ne nu népp dañ koy barkeeloo muy kàddu yoo xam ne Serigne Abdou Lahad Mbacké moo ko moo ko fésaloon àndoon ko ak njabootu Sëñ Touba ga nga ba mu jam jam jamonoonteeloon gépp mu waxoon ni bataaxel boobu nañu ko Seex Maodo Bachir mii jox su ko defee nu yaatal ko ñëpp xam ko ñu dégg ko xam naa dañ koy yaatal rek la si des moom Cheikh Modou Bachir incha allahu moom moo koy àggale sëriñ bi dafa wax ni badaaxal bii moom Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mi ngi ko def si fukki fan ak juróom-ñett si weeru septembre 1980 bataaxal bi nag sëriñ bi mi ngi ko jagleeloon ki nga xam ne moo fi nekkoon si jamono booba procureur de la république muy procureur bi nga xam ne moo jiite woon. tribunal bi ñuy wax tribunal première instance euh, première instance de jurbel mu wax ko si ne ko ci bis bi nga xam ne mooy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru septembre man Cheikh Abdoul Ahad Mbacké xalifa yoonu murit maag samay maag njabootuk Serigne Touba gi di samay rak ñoo bokk signé bataaxal bii di ci naqarlu bu wér euh, di si naqarlu bu wér lu loo xam ne lu bokk ci hmm, waaw ci ci li nu bëgg mu ci faju si Touba si Touba waaw xam boobu daal leerut mu wax ne ñun ñun njabootuk Serigne Touba man Cheikh Abdoul Ahad Mbacké maag njabootuk Serigne Touba gi samay rak ñi nga xam ne ñoom la jamononteeloon ñoo àndandoo di naqarlu bu wér a wér ci tuuba loo xam ne danoo bëgg mu faju te loola di loo xam ne dafa méngoowut ak sarti lislaam ak doxeenu lislaam ñun ñëpp nag nu ànd bisub tey bii signé bataaxal bii nga xam ne danoo bëggoon teg ko ci seeni loxo wax leen ci li si ci naqari lépp te bëgg nu jàppaleenu ci ba ni nu ko bëggee nu amee ko ni ba mu sàkkoo loolu si procureur dafa daal lim li nga xam ne bokk na si lim li nga xam ne moo ko naqari si dëkk bi moom njabootu Serigne Touba gi. la sa jiitu doonoon li ñuy wax jaay ak jëfandikoo lépp looy lépp loo xam ne xeetu sàngara la ak ñi nga xam ne dañuy màndi di dox si mbedd mi di wëndeelu euh, euh, te amuñu fu nu jëm beneen bi si dolliku di njaay ak jëfandikoo lépp loo xam ne xeetu dorog la. muy yàmba ak lu ni mel di ko def si ak nëbbu ak lu feeñ beneen bi si ko mooy lépp loo xam ne xeeti carte la muy carte boo xam ne dañ si carte di si wu teg dara di si yaakaar dara wala carte goo xam ne dañ koy foye wala lu mel ne loterie beneen bi si ko mooy lépp luy xeetu sàcc ak maanaam nëbbal sàcc ak càccam ak ña nga xam ne ñëpp ànd nañ sa càcc ga bi si dolli mooy lépp luy xeeti am tëgg lu jëm si ak musique li ñuy wax musique akum fecc ak lépp lu jëm si maanaam ay xew yoo xam ne dañu fay yëngutu yëngutu boo xam ne yëngutuy caaxaan la ah, li si dolli mooy si tënk ba sa muj ga mu wax ni daal lépp loo xam ne ay ay jëf la yoo xam ne méngoowut ak li nga xam ne mooy principe bu l'islam méngoowut ak li nga xam ne l'islam rafetlu na ko loole lépp tàbbi na si la nga xamante ni bii naqari na Serigne Abdoul Ahad Mbacké ak njabootuk sëñ Touba gi fi newoon di ay rakkam bëggoon nu jàppale ko si ngir loola saafarawu mu wax ni loolu ñi ngi ko def Touba fukki fan ak juróom-ñett si weeru septembre 1980 Serigne Abdoul Ahad Mbacké mi nga xam ne moo fi nekkoon jëwriñu Serigne Touba ànd ko ak rakkam yi yi fi nekkoon ñoom ñoom ñëpp ñu maase signé bataaxal boobu jébbal ko procureur loolu mooy baat yi nga xam ne. tere yi nga xam ne tere yooyee moom moom la Cheikh Abdoul Ahad Mbacké tere woon waaye sëriñ Mountakha Mbacké moom it bi yàlla dogalee liggéey bii dox jaar fi mu war a jaar yëpp ba agsi fi moom moom bi mu agsee dafa am loo xam ne da ko see yokk nun ñëpp ñu dégg ko bokkoon na si li nga xam ne mooy wàllu politique politique moom dégg ngeen ni ko sëriñ bi waxee wax ni li ko gën a naqari si politique si dëkk bi bokk na si wàllu politique Euh, tegoon na siit ne lépp loo xam ne wuute na ak njàngalem Serigne Touba loolaat bokk na si la ko naqari woon si dëkk bi loolu moom la si du Modou Mountakha yokku ak football football it Serigne bi wax na ni loola bëgg ko si dëkk bi naqari na ko fi bu sañoon mu dañ loolu nag gannaaw bataaxal bi Cheikh Abdou Lahad Mbacké defoon Serigne Mountakha Mbacké yàlla yàlla yàggal ak dundam moom it bi mu agsee te jamonoonte ak xew-xew yii mu seetlu ne xew-xew yi luy xajamal ak taalibe la moom it mu yokk sa loola daal di wax ni eh, bëgg na nu jàppale ko si loolee ba loola génn si dëkk bi ba seet fi wécc loolu mooy ndënkaan yi nga xam ne moom la sëriñ Modou Mountakha dénkoon euh, Cheikh Modou Bachir mu jottali ko sëriñ Amdi Fall ak njabootug maam Cheikh gi ngir nu sàmmal ko war ma jooju nga xam ne moom lay sàkku nu sàmmal ko ko si dëkk bii di Touba ak si njabootam gi di njabootug sëriñ Touba gi. mu ngi sant bu baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. maa ngi nuyu ñu fi teew jëpp suñu maanaam mbokki Baye Fall yi maa ngi leen di nuyu bu baax di rafet lu seen taxawaay di am mbégte rek fekkee jataay bi di si sant sëñ sëriñ basiiru Abdou Khadre ndax wax dëgg fa yàlla lépp loo xamante ni bii. administration si wàllu boppam war na ko fekkee wala mu war ko yëg moom bu jaaree ci moom danañ ko fekkee danañ ko yëg loolu nag muy taxawaay boo xamante ni xëj na am naa occasion tey pour sant ko ci ndax jot loxoom joti nag fu fu ñu kawe waaye mu musuñoo bët saa yu ñu waree am taxawaay fii rek daf ñuy yëgal euh, walla mu wow ñu ñu fekke kon nag sëriñ bi ñu ngi lay sant bu baax ci loolu lii nga xamante ne bii moo ñu fi indi tamit dégg nañ sëñ Dame Sode li mu wax euh, ñëwoon nañ si sëriñ bi tamit sa si jamono yële ñu weesu mu yëkkati kayit bi jox ñu bi ñu ko joxee tamit bi ñu ko joxee tamit yeggee nañ ko suñuy kilifa euh, sàmmay wax may dëkk bi nag ñun xam nañ ne. lu yitteel sëriñ bi la moom sëriñ Mountakha te biir nañu ne bu doon lu mën a sàmmal boppam wattul boppam moo koy wattul boppam daa fekk ne dëkk bi nag yaatu na yaatuwaay boo xamante ne bi moom mënu koo wattu fu ne moo tax mu wutam mbooloo muy wattu loolu loolu nag liñ ci jàpp rek mooy képp koo xamante ni yàlla def na tawféex nga bokk ci tànneef boobu nga wéet wala nga wettaliku nanga koy jëfee war nga xalaat sëñ bi bu doon moo koy jëfee noonu ni mu koy jëfee nga jëfee ko noonu loolu mooy tax ñu wàccoo ak bëgg-bëggam moom jamono bi nag dafa nekk jamono bu xaw a doy waar euh, nit doomu aadama yi toll noonu la télé yi toll noonu la rajo yi toll ndax ku si am sa téléphone rek am na tele am na rajo euh, te nag ñi nga xamante ne bii am nañ tawféex pour jëfee ko du ñëpp ñoo leen ko yéene am na si ñoo xamante ni bi bu ñu sañoon saa yu ñu xëyee gis safaan ba man ko publier fu nekk mu dem ci àddina kon nag ñun nga xamante ne bi eh, ñoo am tawféex boobu lépp luñ ciy def rek nañu fexe ba moytandiku suñuy noon am fu ñu yegg ba defee ko ni nga xamante ne bii moom la ko sëriñ bi bëggee lii nga xamante ne bii nag wax nañ ko fi ñun dinañ ko yeggee suñuy kilifa yi nga xamante ne bii ñoom ak sëriñ bi réeroowuñu ndax fii ñun tam ñi am tawféex nekk fi ñaari bëgg-bëgg dong moom lañuy sàmm fii bëgg-bëgg bi ci jiitu mooy bëgg-bëgg bi nga xamante ne bii ñi ñu fi indi mooy état bi waaye nag ci bëgg-bëgg boobu tam bëgg-bëgg sëriñ bi tam ci la bokk te ñaari yëpp amul lenn lu ciy lor askan bi donc ñun jàpp nañ ne donc li sëriñ bi bëgg li état bi bëgg moom la sëriñ bi bëgg te gis nañ ne aussi li sëriñ bi bëgg moom la état bi bëgg donc lii nga xamante ne bi dégg nañ ko fi bu soobee yàlla dinañ ko jotali suñuy kilifa di ñaan yàlla rek ak ñi nga xamante ne bi ñoo dëkk Touba ñu xam ne sëriñ bi du yëkkati dara luy lore état bi du yëkkati dara luy lore la nga xamante ne bi wax nañ see waxtaan ak ñoom ñu waxtaan si ak ñoom ba ni ko sëriñ bi bëggee xëj na mu amee ni nga xamante ne bi moom la ko bëggee yaakaar naa ne loolu bu ñu ko amee rek jàmm dina am fii tey tamit ñëpp ay taalibe lañ donc fii dëkk bi ñëpp ay taalibe lañ donc fexe daal ba euh, li sëriñ bi bëgg euh, mu am njeexital ci askan wi nga xamante ni moom la ko bëggal te mu bañ jur benn féewaloo loolu daal yaakaar naa ne mooy li nga xamante ni bii moo ci am solo ñëw nañ fekk fi sëriñ bi waaye ànd ak procureur ak capitaine bi ak euh, gendarmerie ak commissaire spécial bu soobee yàlla kayit bi ni ni ko fàttaliwaatee nii dinañ ko biralaat bi nga xamante ne bii mooy suñu kilifa bu soobee yàlla taxawaay bu ñu ci war a am bu soobee yàlla ñoom bu ñu ko waxee rek dinañ ko am bu soobee yàlla loolu laa amoon ci kàddu gàtt rek li may wax di sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah taala bokk jullit yëpp mu ne bokki jullit yëpp bokki taalibey murit yëpp bokki taalibey murit yëpp bokki Touba ak li ko wër bokki Touba ak li ko wër mi ngi leen di nuyu nee na mi ngi leen di nuyu ci turu Cheikh Mouhamadul Mountakha. ci turu Cheikh Mouhamadul Mountakha. tey jii ci kaw suuf. di ko ñaanal mu yàgg fi lool. di ko ñaanal it mu yàgg fi lool. te ànd ak wér. te ànd ak wér. ba mbooleem naal yi am ci liggéey Serigne Touba. ba mbooleem naal yi am ci liggéeyal Serigne Touba. suñu borom may ko kattan ak wér. suñu borom may ko kattan ak wér. ba lépp mu mottali ko. ba lépp mu mottali ko. ndax moom da day jëmm joo xam ne. ndax moom Serigne Touba Cheikh Mamadou Mountakha day jëmm joo xam ne. ku yàlla def tawfeex muy sa kilifa. ku yàlla def tawfeex muy sa kilifa. war ngaa sant yàlla bu baax. war ngaa sant yàlla bu baax. war ngaa ndamu bu baax. war ngaa am ndamu bu baax. war ngaa bu bax war ngaa puukari wu it bu baax. waxuma nag bakku. waxuma nag bakku. waaye war ngaa puukari bu baax. bu baax. ndax moom de. ndax moom de. itteem jëpp. itteem jëpp. mooy nit ñi am jàmm. mooy nit ñi am jàmm. li muy faral di yëkkati ci kàddoom. li muy faral di yëkkati ci ay kàddoom. di wax ne lii ñëpp ñëpp laa ko yéene. di wax ne lii kat ñëpp laa ko yéene. loolu la yàlla def ci moom. loolu rek la yàlla def ci moom. bu sañoon ñëpp jub. bu sañoon ñëpp jub. bu sañoon ñëpp defaru. bu sañoon it ñëpp defaru. bu sañoon ñëpp baax. bu sañoon it ñëpp baax. kon nag li ñu war. kon li ñu war. topp ci ginnaawam. topp rek ci ginnaawam. di déglu ay di déglu ay ndigalam. ndax ni ko suñu borom waxee waxoon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam rek. ni ko suñu borom waxee woon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. ne ko bu ñu toppoon li ngay wax. ne ko bu ñu toppoon li ngay wax. topp li ñu leen di digal. topp liñ leen di digal. ak yëkkatu ko leen di jural. ak yëkkatu ko képp la di jural. ndam rek leen di jural. ndam rek la di jural. te bu boobaa nag. te bu boobaa nag. danañ mën a yëkkati suñu bopp. danañ mën a yëkkati suñu bopp. xam ne wa antumul wa antumul laxlawna in kuntum muminin. wax ne wa antumul laxlawna in kuntum muminin. kon ñu ngi koy ñaanal bu baax. kon ñu ngi koy ñaanal bu baax. kaddu yi nag du gudd. nee na kaddu yi nag du gudd. ndax dëmbu ndax démb. ci àllarba ji. ci àllarba ji. bi sëriñ bi ubbee rek. bi sëriñ bi ubbee rek. daa wax li yitteem jëpp. daa wax li yitteem jëpp. li ci jiitu. li ci jiitu. wala tàmbalee dajeeg nit ñi. ba balaa tàmbalee daje ak nit ñi. ndax moom du noppalu. ndax moom kat du noppalu. bu nit ñi bëggee mu noppalu sax. su nit ñi bëggee sax mu noppalu. day wax ne sëñu ko. day wax ne sëñu ko. ndax liggéey bi ndax liggéey bi. sëñ Cheikh mi xam na ci dara. sëriñ Cheikh Abdou Latif mi xam na ci dara. ñun ñi topp ci ginnaawam. ñun ñii topp ci ginnaawam. dañuy dem ba duñ mën a seqeeti jéego. dañuy dem ba ñun duutuñu mën a seqi ab jéego. waaye foo ko fekk ci biir néegam. waaye foo ko fekk ci biir néegam. mu yendu ci daayira yi. mu yendu ci daayira yi. ba nga jàpp ne boo ko fekkee da nga koy fekk mu tëdd. ba nga jàpp ne bu ma demee dama koy fekk mu tëdd. da nga koy fekk mu yor jukkib xasida bi. da nga koy fekk mu yor jukkib xasida am. boo ko soxlaa. boo ko soxlaa. day day teg téere bi. day teg téere bi. wax ak yow. wax ak yow. ñaanal la. ñaanal la. àggale waat jukki bi. yoraat jukkeem àggale ko. boo ko fekkoon guddi noonu lay def. boo ko fekkoon guddi guddi noon lay def. kon kooku bëgg na nit ñi am jàmm. kon kooku de bëgg na nit ñi am jàmm. ndax bu doon jëmmam rek. ndax bu doon jëmmam rek. lu bari teggiku na ko. lu baree bari teggiku na bëgg xet li bindee fi rek. waaye bëgg xet li bindee fi rek. kon ñoo ngi ñaanal mu yàgg fi kon ñoo ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool tànd ak wér. démb nag bi mu agsee. démb nag bi mu agsee. dama woo fi saasa. da koo daal di woo fa saasa. wax ne naa wax ak Serigne Amdi. wax ko ne ko na nga dem wax ak am di moom Serigne Modou Mbenda. moom Serigne Modou Mbenda. mi fi jëmmi Cheikh Ibra tey ci kaw suuf. mi fi jëmmi Cheikh Ibra tey ci kaw suuf. ñu ngi koy mu yàgg fi te ànd ak wér. ñoo ngi mu yàgg fi lool te ànd ak na ko na yabal njabootam gi. na ko na yabal gi. mu wax ak ñoom. mu wax ak ñoom. waxtaan wi waxtaan wi it. la ci jiitu. la ca jiitu. mooy mooy cant. gërëm leen. ak gërëm leen. ak ñaax leen. ak ñaax leen. ak ak ñoom liggéey bi. ak ànd ak ñoom nag liggéey bi. ndax liggéey bi da koo itteel. ndax liggéey bii moom da koo itteel. bu ngeen seetloo. bu ngeen seetloo. waxtaanoo yu mu jëpp. waxtaanam yu mujj yëpp. daaw ba daaw ba saa su waxee war may dëkk bi. saa yu waxee rek ci lu sàmm war may dëkk bi lay wax. kon itteel na ko. kon itteel na ko. te bëgg a dimbale nit ñi rek te bëgg a nit ñi képp a tax. mu wax leen nam ko bëggee. sëriñ bi nag wax leen nam ko bëggee. ndax lam ci jublu it. ndax lam ci jublu it. mooy bañ kenn juum. mooy bañ kenn juum. ndax ñi dëkk bi jë ñi dëkk ci dëkk bi ñëpp. ndax ñi dëkk ci dëkk bi ñëpp. njabootam lañ njabootu sëñ Muntaxa lañ. ñëpp taalibe sëñ Tuubaa lañ. ñëpp taalibe sëñ Tuubaa lañ. ñenn ñi fi koomum àdduna andi itam. ñenn ñi fi koomum àdduna andi itam. yaakaar yërmande sëñ bi tax. yaakaar yërmande sëñ bi rek a tax. kon yër kon dëkkub yërmande la. kon dëkk bi dëkkub yërmande la. kon bëggul kenn loru. kon bëggul kenn loru. te am na ñaari baat yu mu jëfandikoo démb. te am na ñaari baat kat yoo xam ne jëfandikoo na ko démb. te waxoon na ko démb waxoon na ko ci kor gi. te waxoon na ko ci kor gi. na sëñ Tuubaa ba mu jógee. na sëñ Tuubaa ba mu jógee. la ko tax a jóg moo ko tax a jóg. la ko tax a jóg rek moo ko tax a jóg. dem na ba am ca ndam. dem na nag ba am ca ndam. toq deret tuur te genn toquk deret tuuruwut. xaddamut xaddamut. démb fa fàttali na ko. baat boobu démb fàttaliwaat na ko. kon lam ci jublu woon. kon lam ci jublu woon. mooy kayit wa nga xam ne. mooy kayit wa nga xam ne. ak Cheikh Abdoul Ahad Mbacké. ak Cheikh Abdoul Ahad Mbacké. bindoon na ko. bindoon na ko. àndoon ko njabootu Serigne Touba gi mu fi fekkandoon. àndoon ko ak njabootu Serigne Touba gi mu fi fekkandoon. yaakaar gis nañ kayit yi. yaakaar naa kayit yi ñu bëree bëri gis nañ ko. moo leeral li mu bëgg ci dëkk bi. Cheikh Abdoul Ahad leeral li mu bëgg ci dëkk bi. ak lim fi tere. ak lim fi tere. te loolu dinaa leen ci nett lu tuuti te loolu kat danaa leen ci nett lu tuuti xëy na sax du waxee rajo xam na xëy na sax du waxee rajo waaye Cheikh Abdoul Ahad ba mu koy def waaye Cheikh Abdoul Ahad ba mu koy def nee na Serigne Touba moo ko wax directement nee na Serigne Touba ko ko wax directement te boobu ma nga te boobu ma nga Touba Belal ba ba àgg ci misaal ñam ko doon wax ba àgg ci misaalal ñam ko doon wax te ña ko doon ñam ko am na dund am na ci ñoo xam ne ñu ngi dund sëñ Moustapha sëñ Abdou Khadir mi nettali na ko moom sëñ Abdou Khadir mii na ko xam ngeen ne lu mu wax te sëñ Moustapha de moom xam ngeen ne lu mu wax. lu wér la lu wér la. sëñ Abdou Lahad nee na ko. sëñ Abdou Lahad nee na ko. sëñ Touba yónnee ci man ndaw. sëñ Touba moo yónnee ci man ndaw. ab leetar ab leetar mbind mu tooy xëpp mbind mu tooy xëpp te leetar ba it ña ko doon andi te leetar ba it ña ko doon andi sëñ ma ca la bokk ma Masamba ca la bokk sëñ Modou Mamoun Ñang ñoom ak sëñ Moustapha la ko nettali sëriñ Modou Mamoun Ñang ak sëñ Moustapha am sëñ Abdou Khadir ko nettali loo ak ñeneen ak ñeneen te nettali na ko ñeneen te nettali na ko ñeneen loolu kon loolu xam ngeen bu ngeen gisee sëñ Muntaxa dogoo nii rek bu ngeen gisee sëñ Muntaxa dogoo ci nii rek ndigalul sëñ Tuubaa la ndigalul sëñ Tuubaa la man awma ci sikki sàkk man awma ci ba mu wax ba mu waxee Baye Fall ba noppi. ba mu waxee Baye Fall ba noppi. Eh, andil leen ndigal li. andil leen ndigal li. bind ko ci wu kayit. bind ko ci wu kayit. ne leen fii la tàmbalee. ne leen fii la tàmbalee. fii la yem fii la yem. loolee itam lam ci jublu. loolee itam lam ci jublu. xam na ne Baye Fall moom. xam na ne Baye Fall moom. ñoom seen seen seen seen dund gépp. ñoom seen dund gépp. mooy ndigal mooy ndigal. te bëggul dara dara ëpp. te bëggut nag dara ëpp. bëggut dara yées. bëggut it dara yées. ndax inna diina mabniyun ala ala naqli. ndax ala ala munasabati naqli diina ji. nee na diina ji. Seydina Aboubacar dafa wax ne. Seydina Aboubacar dafa wax ne. niñ ko toxalee rek. niñ toxalee diina ji rek. noonu lay wéree. noonu lay wéree. waaye kenn du jëfandikoo sama. waaye kenn du jëfandikoo nag sam xel ci diine. fii la moo tax sëriñ bi ne fii la tàmbalee. fii la yem fii la yem. mbégteem àgg na ci. mbégteem àgg na ci. ba mu waxtaanee ñoom ba noppi. ba mu waxtaanee ñoom ba noppi. yéem seen pësteef. yéem seen pësteef. yéen seen seenu dëggu. yéem seenu dëggu. sant leen ci li weesu lépp. sant leen ci li weesu lépp. dafay yëkkati ñaari gëléem. dafay yëkkati ñaari gëléem. ne leen damaa bëgg ngeen barkeeloo ko def ko añ. leen damaa bëgg ngeen barkeeloo ko nag def ko añ. kon loolu ak yëkkatiku la. kon loolu ak yëkkatiku la. kon loolu rek mooy li ci solo. kon loolu mooy di ci ëpp solo. kon daanaka kaddu yi sëriñ Cheikh wax na li ci matoon wax. kon daanaka kaddu yi sëriñ Cheikh wax na ci li ci matoon wax. ndax moom. ndax moom. xam ngeen ne mooy ndawul sëñ bi ci ñoom. xam ngeen ne mooy ndawul sëñ bi fii moom. muy jàmbaar lool itam. muy jàmbaar lool itam. di borom Pastef. di borom Pastef. jaay njureel gépp. jaay njureel gépp. ak bokk gépp. ak bokk gépp. jënd koog taalibe. jënd koog kon ñu ngi sant mooy. kon ñu ngi lay sant yow bu baax. sëñ daam mi itam. sëñ daam mi itam. moo fi teewal am Amdi. moo fi teewal sëñ Amdi. ak bokkam yëpp. ak bokkam yëpp. teewal fi sëñ bi. teewal fi sëñ bi. waaye moom itam muy jàmbaar. waaye moom itam muy jàmbaar. démb la ko sëñ bi mujj seere. ko sëñ bi mujj seere. na man de miinu ma ko woon. na man de miinu ma ko woon. waaye dogu gi ma séen ci moom. waaye dogu gi ma séen ci moom. ak pësteef gi ma séen ci moom. ak pësteef ma séen ci moom. ak yitte ju kawe ji ma séen ci moom. ak yitte ju kawe ji ma séen ci moom. ràññee gi ma séen ci moom. xam naa ndimbalul maam la. xam naa ne ndimbalul maam la. kon ñi ngi sant ñëpp. kon ñi ngi sant kon loolu daal. kon loolu daal. mooy ndigalu sëriñ bi. mooy ndigalu sëriñ bi. la ca des nag. la ca des nag. mooy di nuyu préfet. mooy di nuyu préfet. Euh, mi nga xam ne moo fi moo fi teewal nguur gi. mi nga xam ne moo fi teewal nguur gi. ak ñi ko seqal ñëpp. ak ñi ko seqal ñëpp. di procureur bu Mbakke. di procureur bu Mbakke. ak euh, commissaire bu Touba. ak commissaire bu Touba. ak commandant bu gendarmerie. ak commandant bu gendarmerie bi. ndax ñoom ñoo seq liggéey ndax ñoom ñoo seq liggéey bi. te liggéey bi nag day liggéey bu yaatu. te liggéey bi nag day liggéey bu yaatu. danaa ci dellusiwaat. danaa ci dellusiwaat. waaye li ci am solo. waaye li ci am solo. kon préfet ñu ngi lay yóbbanti ci say kilifa. kon préfet ñu ngi lay yóbbanti ci ndax ni ko waxee rek. ndax ni nga ko waxee rek. duñ la fi tëb di jàll. duñ la fi tëb di jàll. ndax bu ngeen xoolee lettre bi. ndax bu ngeen xoolee lettre bi. ba ko sëñ Abdou Lahad di bind. ba ko sëñ Abdou Lahad di bind. mënoon na ko adressé Abdou Diouf. mënoon na koo adressé Abdou Diouf. waaye defu ko. waaye defu ko. ki ne la ko def. ne fii rek la ko jox. kon yow it sa loxo lañ ko tegaat. kon yow it nag sa loxo lañ ko tegaat. ndax daaw sëriñ bi da leen a woo. ndax daaw sëriñ bi da leen a woo. te laata mu leen di woo. te laata mu leen di woo. damaa woo ba ma ñëw. damaa woo ba ma ñëw. mu ne mi. mu ne la woo mu ne ko wool ma ki jiite réew mi. président Macky Sall. président Macky Sall. sëñ bi wax ko ko ci téléphone. sëñ bi wax ko ko ci téléphone. wax ko ni mu ko bëggee. wax ko ko ni mu ko bëggee. sëñ bi leeralaat na ko. sëñ bi leeralaat na loola. kon loola jëru kon loola jëru la cay wàll na ngeen taxaw bu na ngeen ci taxaw bu baax ndax euh, li tax. ndax li tax. bu ngeen ci taxawul rek. bu ngeen ci taxawul rek. jafe-jafe lay indi. jafe-jafe lay indi. ndax Baye Fall moom. ndax Baye Fall yi moom. li leen sëñ bi digal. li leen sëñ bi digal. faaw ñu def ko. faaw ñu def ko. kon yéen tam bu ngeen leen ko sàmmulewut. kon yéen itam bu ngeen ko sàmmulewut. bu ci jafe-jafe amee day naqaree lijjanti. bu ci jafe-jafe amee day naqaree lijjanti. ndax ñoom seen bakkan lañ teg ci ndigalu sëñ ndax ñoom kat seen bakkan bii lañ teg ci ndigalu sëñ bi. xew-xew yii fi amoon. xew-xew yii fi amoon bañ ñëwee ci man bañ ñëwee ci man ña ca gaañu ci ñoom bari na ña ca gaañu ci ñoom bari na waaye dañ ne bu ci nit faatu woon it waaye dañ ne ko bu ci nit faatu woon duñ la ko wax duñ la ko tàggee ndax xam ne def na lam war a def ndax dañuy xam ne def na lam war a def kon yéen kon yéen itam am ngeen ci responsabilité am ngeen ci responsabilité te ñoom it am nañ ci gàllankoor te ñoom ñiit nag am nañ ci ay gàllankoor ñoom duñ jàmbat ndax ñoom duñ jàmbat Baye Fall duñ jàmbat Baye Fall duñ jàmbat ñoom seen bakkan rek la ñuy joxe ñoom seen bakkan rek la ñuy joxe waaye bari lool waaye bari na lool nag ñun jàpp ci biir dëkk bi ñun jàpp ci biir dëkk bi ndax nit ñi dañuy jàmbat. ndax nit ñi dañuy jàmbat. ne dañuy dugg ci biir kër yi. ne dañuy dugg ci biir kër yi. te loolu bokkul ci liggéey bi. te loolu bokkul ci biir liggéey bi. waaye loolu nag bokk na ci leen di jafe-jafe bi. waaye bokk na ci nag leen di jafe-jafe bi. ñoom da ñoom Baye wax ne. ñoom Baye Fall yi dañoo wax ne. kër gu ngeen gis ñu dugg ci rek. kër gu ngeen dañ ko topp bañ defa jaay yàmba wala lu ñu demee. koy topp bañ xam ne dañ fiy jaay yàmba wala lu ñu demee. moo tax ñu dugg fa moo tax ñu dugg fa. loolu nag kon yéen leen ci war a taxaw. loolu kon nag yéen leen a taxaw. te na lool. na lool. burut benn du du ñaar. buñ jàmbatee ne. bu subaa bu subaa ñu gisaat ko muy dox ci mbedd bi. bi ci nag am lëj lay doon. loolu nag am lëj lay doon. kon yéen itam ci am seen responsabilité kon yéen itam nag da ngeen am seen responsabilité bu ndax bu ngeen ko jëlut responsabilité bi bu ci leneen xewee bu ëllëgee bu ci leneen xewee bu ëllëgee bu ngeen bu ngeen du sotti bu ngeen dënniirloo it du sotti ndax yéen lañ dénk nit ñi ndax yéen lañ dénk nit ñi kon loolu seen responsabilité kon loolu seen responsabilité kon ci yëgoog ñoom kuñ ci fuñ ci demati ba mu wóor leen liyee nga fa. fuñ ci demati ba mu wóor leen ne liyee nga fa. te loolu lu waa Sénégal tere na ko. te loolu lu waa Sénégal tere na ko. li lu waa Sénégal terewul nag. li lu waa Sénégal terewul nag. te sëñ bi moom ab dëkkam di këram. te sëñ bi moom ab dëkkam muy këram. loolu mbirum boppam. loolu mbirum boppam. waaye la ci des yéen da ngeen caa war a taxaw. waaye la ci des nag yéen da ngeen caa war a taxaw. ndax bu ngeen ci taxawul rek. ndax bu ngeen ci taxawul rek. mooy waral ñoom ñu fajal seen bopp. mooy waral ñoom ñu fajal seen bopp. te buñ fajalee seen bopp. te buñ fajalee seen bopp. nit ñi ne civil. ne nit ñi ne civil. du lijjanti moromam siiwalam. du lijjanti moromam siiwalam. te fekk na taxawaay bu war a am bu amee. fekk na taxawaay nag ba war a am bu amee. bu ñu leen signalé yéen. bu fekkee ne bu ñu leen signalé yéen. ngeen def ceeg dogu. ngeen def ceeg dogu. kon du agsi foofu. kon du agsi foofu. kon loolu laa leen ci soññi. kon loolu laa leen ciy soññi. procureur yow itam. procureur yow itam. nga jottali ko say kilifa. nga jottali ko say kilifa. ndax xam ngeen ne. ndax xam ngeen ne. ñëpp xam nañu Sénégal. luwaa ni mu tëddee. waaye jàpp naa ne la mayoon Cheikh Abdoul Ahad. waaye jàpp naa ne la mayoon Cheikh Abdoul Ahad président ba mu fi nekkaloon. président ba mu fi nekkaloon. mayoon ko lii ñu ko tere Touba. mayoon ko lii ñu ko tere Touba. loolu lu waay Sénégal terewu ko. loolu lu waay Sénégal terewu ko. waaye loolu xam nañ ne. waaye loolu xam nañ ne. dëkk bi yaayoon na ko. dëkk bi yaayoon na ko. kon yéen itam ngeen def ci ngeen def ci yitte. kon yéen itam ngeen def ci yitte. ndax bu ngeen ci deful yitte rek. ndax bu ngeen ci deful yitte rek. anarchie mooy am. anarchie mooy am. ndax ñoom li leen sëñ bi digal. ndax ñoom ñii kat li leen sëñ bi digal. seen bakkan lañ ci rek. seen bakkan lañ ci rek. buñ ci doon faatu ba jeexit. buñ ci doon faatu ba jeexit. xam naa ne jaral na leen ko. xam naa ne jaral na leen ko. kon nag kon nag loolu mooy li ci jëm ci loolu loolu mu ci jëm ci lool li ci des mooy bokki taalibe yi dëkk ci dëkk bi li ci des nag mooy bokki taalibe yi dëkk dëkk bi nañ xam ne nañ xam ne lii sëriñ bi sant baay Fall yi sëriñ bi sant baay Fall mboolem seexi sëriñ Touba yi mboolem seexi sëriñ Touba ñëpp la ko sëñ bi sant ñëpp la ko sëñ bi sant ndax ñoom seen maam yaa ñoo gàddaayoon ndax ñoom kat seen maam yaa gàddaayoon te dara taxu leen a jóg lu may ngërëmul sëñ Touba te dara leen a jóg lu dul ngërëmul sëñ Touba ànd ak sëriñ sëriñ bi xamuñu woon fu ñu jëm. xamuñu woon fu ñu jëm. ba sëriñ bi yóbbu leen fii mu leen yóbbu. ba sëriñ bi yóbbu leen fii mu leen yóbbu. kon ñoom suñu bokki seex sépp. kon suñu bokki seex sépp. nañ xam ne ndigal li nañ xam ne ndigal li ñoom ñoom ñoo ko bokk ñoo ñoom ñoo ko bokk rasulullahi sallallahu alayhi wa danaa def rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam danaa def bu yónni woon ñetti nit wala ñeent sax bu yónni nit wala ñeent faaw mu wax ne kenn jiitu faaw mu wax ne kenn jiitu dafa mel nag julli dafa mel nag julli ñëpp lañ ko sant ñëpp lañ ko sant waaye faaw kenn jiitu waaye nag faaw kenn jiitu kon nag loolu kon nag loolu kër yëpp nañ ko xame noonu kër yëpp nañ ko xame noonu ñoom itam demoon nañ ci ñi nag ñu ci ëpp demoon nañ ci ñoom waaye démb waxaat nañ sëñ waaye démb waxaat nañ sëñ bi ne ko bind nañ ay leetar bind nañ ay leetar ngir wër kër seex sëpp. ngir wër kër seex sëpp. ndax bëgguñ ak defar gu jur yàq. ngir bëgguñu ak defar guy jur yàq. bu ci bu bu ko defee. bu ko defee. kenn ku ne penc ma nga ne. kenn ku ne penc ma nga ne. yaa fa yaa leen fa nekkal. yaa leen fa nekkal. loo fa gis. loo fa gis. lu war sa dañ nga dindi ko. lu war a dañ nga dindi ko. kon loo ñoom itam ñu leen koy digal. kon ñoom itam ñu ngi leen koy digal. di ko digal itam Abdoul Ahad di ko digal it Abdoul Ahad Ka. yàlla dafa dafay nekkut. yàlla dogal dafay newut. ndawa ngi fi. ndawaama ngi fi. ndax moom itam moo jiite ndax moom itam moo jiite commune mu ànd koog yéen. mu ànd koog yéen lépp lu ciy taxawaayam ci lépp lu ciy taxawaayam ak lu mu ci war a def ak lu mu ci war a fi yu mag yi sax police yi réew yu mag yi sax police yi mënatul attan sécurité dëkk ba police yi ci seen jëmmi bopp attanutuñ sécurité nga xam ne taalibe Sëriñ Touba li ci des nag li ci des nag moom doxinu àdduna la. moom doxinu àdduna la. fu lu baax nekk rek. fu lu baax nekk rek. safaan ba dugg si. safaan ba dugg si. ndax sëñ Abdou Lahad ba muy tere lii. ndax sëñ Abdou Lahad ba muy tere yii. ñi judd ginnaaw bi. ñi judd ginnaaw bi. xamuñu ne dëkk bi meloon. ne dëkk bi meloon boobu. waaye ak dogoom rek. waaye ak dogoom rek. moo tax mu agsi fii. moo tax mu agsi fii. dogu googee nag. dogu googee nag. ca la Cheikh Mouhamadou Mountakha di roy. ca la sëñ Mountakha di roy. fas yéene. fas yéene. lim bëgg lépp mu am ko. lim bëgg lépp mu am ko. te di su fitnaal nit. te di suñ ci fitnaal nit. di su toroxal nit. di su ci toroxal nit. di su dóor nit. di su ci dóor nit. Serigne Touba nag. Serigne Touba na ne Serigne Abdoulaye dafa waxoon ne. Serigne Abdoulaye daa waxoon ne. Serigne Touba. Serigne Touba. melaw géej la yor. melaw géej la yor. géej nag attan na lépp. géej nag attan na lépp. lu dugg ci biiram mu attan mu attan la. lu dugg ci biiram rek mu attan. waaye lu ci bokkul nag dana la génne. waaye lu ci bokkul nag géej dana ko génne. ba ci taw bi sax. ba ci taw bi sax. lu taw bi bari bari. lu taw bi bari bari. bu noppee dana ko génne. bu noppee nag moom dana génn ndoxam. loolu mooy mbirum sëñ bi loolu mooy mbirum sëñ Touba. te waxoon na sëñ Amsatu Jaxate na ko. te waxoon na sëñ Amsatu Jaxate na ko. mujjug jamono de. mujjug jamono de. danaa yelbu. danaa yelbu. bu ma yelboo nag ku ci bokkul da nga génn. bu ma yelboo nag ku ci bokkul da nga génn. kon nag loolu. kon nag loolu. mooy ndigal li mooy ndigal li li ci des nag li ci des nag sëriñ bi joxoon na ndigal na naa ko leeral sëriñ bi joxe woon na ndigal na naa ko leeral sëriñ bi joxoon na ndigal na naa ko leeral sëriñ bi joxe woon na ndigal na naa ko leeral jox ndigal Baye Fall yi jox ndigal Baye Fall yi ba wax ci élection yi ba waxoon ci election yi wax ne nit ñi dañ koo déggee ne nit ñi dañ koo déggee ne sëriñ bi bëggatul ko watte ci dëkk bi sëriñ bi bëggatul ko watte ci dëkk bi waaye daa bëggoon ñu génne ko dëkk bi waaye daa bëggoon ñu génne ko dëkk bi ba ma ñibbisee itam ba ma ñibbisee itam sëñ bi jox ma ci ndigal sëñ bi jox ma ci ndigal ma àndoon ko jarbaatam di secrétaire am xaadim suñu xaadim Diop. ma àndoon ko ab jarbaatam di secrétaire am di suñu xaadim Diop. ak ñam ko seqaloon. ak ñam ko seqaloon. ñoom ñoo ca liggéey. ñoom ñoo ca liggéey. ba bindoon ko ci kayit ba bindoon ko ci aw kayit niñ ko xalaate niñ ko xalaate jébbal ko sëñ bi jébbal ko sëñ bi sëñ bi wax leen ñu indil ma ko sëñ bi wax leen na ko nañ ko yët sëñ Basiiru ba ma ko ko yutee ba ma ko ko yutee mu ne ma yët ko njiitu réew mi mu ne ma yët ko njiitul réew mi nii laa ko xalaate nii laa ko xalaate ma jógee fii dem ba jox ko ko ma jógee fii dem ba jox ko ko mu xool ko mu xool ko yónnee ko ministre de l'intérieur yónnee ko ministre de l'intérieur ba mu ko ko joxee nag ba mu ko ko joxee nag ñoom bañ ko saytoo ñoom ba mu ko saytoo ñu xool xam ne xaj xat na ñu xool xam ne xat na xam ne xaj na wala mën naa indi jafe-jafe wala mën naa indi jafe-jafe ndax ne kuy wate ku ne ndax dañoo wax ne kuy wate ku ne sa carte d'identité sa carte d'identité fa nga war a watee dañ ko caa a def fa nga war a watee dañ ko caa a def bi sëñ bi xamee loolu nag bi sëñ bi xamee loolu nag mu ne kon jàmp na mu ne kon jàmp na at moom at mii moom nañ ko bàyyi na meloon nañ ko bàyyi na meloon ndax bëggut dara loo xam ne dana gàllankoor nit ñi ndax bëggut dara luy gàllankoor nit ñi